asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxemes ñaar fukki fan ak ñett ci weeru rabiul awal muy weeru gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ak ñett bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci alxemes ji rafet na li ci gën a taamu mooy ko ca daloo alxemes ju nekk nag sunna la ci ku ko man mu woor ko ñaanu bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga ma yërëm yàlla na nga ma jubal yàlla na nga ma jàmmal yàlla na nga ma wërsëgal allahumma axfir lii warxamnii wahdinii wa aafinii warzuqnii allahumma axfir lii warxamnii wa aafinii warzuqnii bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee misaalum way gëm ci seenug soppante ak seenug yërëmante ak seenug ñeewant mi ngi mel ne aw yaram rekk bu ci ab cër dee metti yaram wépp a ko yëkk ci ak ñàkk nelaw ak tàngoor xaddis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam masalul muminina fi tawaadihim wa taraxumihim